mbettal la ci nun daal ñu xëyee daal lañ ñu téléphoné ne am na ko ñu fi rey bi ñëwee fekk nañ fi ko nit ñi ak autorité yi ñu gis ko waa ne xamuñu ko te ci quartier bi la dëkk fa la dëkk ci biir dëkk bi la dëkk ama nag suñu njoot dañoo njort ne dañ ko rey indi ko fi te bi ñu fiy jógee timis boobu dara xew fi kenn nekku fi dañoo xëy daal may xëy de julli bay laasin daan lañ ma woo ne ma xëy nga mën a xëyuma ñu ne ma ah bon la teg yéegoo la xew sa palaas ma ne ko déedéet mu ne am na ku ñu faray ma ne ah loolu doy na waar maa ngi maa ngi ndékki dem ndékki laa ñëw fekk fekk fi nit ñi ma laaj ma xool image bi gisuma xaw ma ko ma ne kii daal danga naa dëkkul fii yëpp bu fi dëkkoon ma xam Euh, xaw ma ko daal laaj génn laaj laaj kenn xamu ko fi lañ ne ba dix heures passé donte sax ma ngi dëkk fi waaye na xamuñu ko man ne bu fi dëkkee dafay luye ba nga xam ne yàggu fi yàlla dogal ginnaaw bi nag gars yi defar ko yóbbu yóbbu ko tànqal fi nijaam jógee moom ah. dañ koo dañ koo rendi wala dañ koo. koo jam ay paaka. dañ koo jam dañ koo jam ba butit yi génn. ci biir bi ci biir biir bi bon butit du génn butit génn te bon biir la. ci biir bi noo ko ja noo ko jàngatee. agressé parce que nañ jëluñu moom ci moom dara. comme nit koo xam ne da koo waroon a jëluñ ci moom dara. ndax fe ndax fekk nañ fi portable. Mhm. ak 10 000 loolu la ñu ma wax. Mhm. bon bon jëluñ ci dara. moo mhm. ko jàngatee ñaaw daal. xanaa ñàkkul ñàkkul dil la xam na loolu ndax euh, magam bi ñëwoon fii daal nee na démb ci tàkkusaan dafa jóge am na kooku woo nag nee na kooku mu ne en fekk mu doon attaaya kooku la wuy woon mu ne fanaan mu ne ko fanaan siwul gi yaay jog na ay yoon yoon pour mu ne ko mën naa fa muy liggéey fa lay fanaane dëkk fanaanu fa lii moo xew xamuñu ban heure la amu dañ ko ci kar ko amuñu dañ koon sàkku xamuñu daal noonu demee mbir mi daal kenn tanewu ci kenn dañ ñëw fekk fi rek mu dee mu jël enquête bi daal moo ko mën a génne waaye fi mu toll nii amuñ ci leneen man bi may ñëw neuf heures passé na dama naajee ñëw comme maa ngi dëkk fële boori eh, boori Kaaba xam nga damay naajit te maa ngi daal du ma liggéey liggéey ma loolu moo tax. waaye actuellement man maa ngi ci jàkka ji nag. noo leen jàng noo rey gu bari gi am ci Sénégal. ñàkk sécurité rek euh, sécurité bi moo manqué mën maa wax ne euh, gouvernement bi defuñu dara waaye ba tey des na mënuñu it wax dëgg yëpp milieu bu ne ñoo fa benn gardien nit ki moo war a gëm yàlla xam li ko war ci doomu aadama mu di ko def li ko warul mu bàyyi ko. waaye ñàkk sécurité bi moom bari na lool. léegi daal alxuraan bu ñu ko appli li ñu appli si bu ñu ko defoon xëy na mu wàññee ko ku rey ñu rey la ko jam ñu jam la loolu daal mooy li nga xam ne bu ñu ko defoon ragal naa dena tane kenn bëggul a dee waaye fekk sa morom jullit defu la dara nga rey ko moo xam yóbbu nga ci moom dara moo xam da nga ko doon sàkku ndaxit it booy rey nit am nga intention intention boo xam ne nii moo tax nga rey ko xanaa benn nga doon soxla ci moom xaalis wala ngay ji mu jigéen nga sàkku ko yooyu ñaar la yooyu nag bu amee ci nit nag dañ la war a teg ay daan daan mooy mooy rey bu fekkee ne yaa ko tey boo ko teyee nga nga dee loolu bu la alxuraan wax inna nafsa bi nafsi wala ayna bil ayni wala usnu bi usni wa sinna bi sinni wala jaraa xisaasun bu dee jam-jam sax nañ ko def xisaas natt ko jam la ko loolu mooy yoon bu ñu ko defoon affaire dina wàññi ko waaye nii doxal ni droit de l'homme jàpp ñu ci dëgg te du dëgg. ah jàpp daal Sénégal daal ku rey daal dañ laa war a rey rek. ku rey daal dañ laa war a rey man daal loolu laa loolu laa nangu man fi jógee nag mënuñu ko faj te loolu amul tant que ku rey ñu rey na amul sécurité amu fi il faut que loolu rek loolu daal moom lan moo ko jeexal.